mais man man pourquoi man ba mu ñëwee ba tey mënu maa gis loota mënu ma ko tëg bët fépp foo foo xalaat dem naa fa wër naa ko nekk fépp foo xalaat si Dakar Ndiaye wër naa ko mais man mënu ma ko tëg bët tey yow ma ñibbisee dafa sama néeg bi nu mel nii mais pour takku ko unique sama sama kër gi moo tax ma def ko mais depuis loolu mënu maa fexe ba teg ko bët man dama xamul man est man dama ragal est-ce que nekku sax buum te man yëguma ko mais tamit dafa am lu parce que man nii personnellement ba ma demee woowu ma téléphone xaw ma si lu mu nekk déggantum quoi benn côté am naa si pas responsabilité mais nag bon incha lu mu mën a def pour pour ko ba dinaa ko def lootu ma su lootu léegi ma sa doom fonk respecté ya, ma moom yow lan moo tax nga bañ ma yow. xaw ma lan la may yow bëgguma la. man sa yaay nga ne ma man bëggoo. mais bëgguma la yàlla koy def. moom delloo si sa xol sa xel. sama xel musul jóg ci sama xel chaque jour maa ngi ànd ak moom. yow munu ma laa bëgg te bul ko essayé. yow eh taxaw lu tax nga ni munoo maa bëgg moomoo. ba nga xoolee ya, ba sama papa réer la ma judd don jirim sax moko ko gën sa bàyyi xamone ndax moy dund xamone ndax deena na nga ne man dina la bëgg fa la koy jëlé momo delo ci sa xel té nga xamné sa bàyyi mo bon momo ba ngay nek ndaw la ma sa papa bàyyi. yow ak abandoné ma. yow ak sama papa yena yam yem mbaa mu tane la parce que liko indi won ci coow def nako yow ya xol ba mu la yena a wala sax sama papa tané la. momo moom lu ne def nako lu ne def nako ngir yow luna def na ko ngir sa papa mais momo bul jël lepp te ko sama kap kan laa koy teg kan man defuma dara lepp sa papa momu la ma bëgg nag nga delloosiwaat sa xel te nga xamne momo moomoo na man mel moom yow la am yow yaay sama taaw moomoo dama bëgg nga jox ma ci fonk ma kon ni doon di fonké ndayam loolu la bëgg. yow man nga am man awma ma ku sama maam man du papa ta du yaay may dox ci mbédé mi. doon magum jëmm xam ma kan mooy sama papa nga fam neex loolu neex na ci xol ngay sañse di taabar jaagari di dox i dem yow yaa tal solo ak sumi ko man maa ngi ci leneen. moom moom nga defe ne loolu gënal na ma ah est-ce que loolu gënal na ma. wax sama yoon nekku ci. moom moo bul yàq sama xol moom moo sonn naa yaram ma. boo amee karja ci yow lay méttiwaat ci man. ndax na dégg naa sama ittee sama papa. Eh, man li suma koy war liggéey sonn naa metti na waaye Cheikh di nga xam ni man nga amal affaire tey bu ma ba sama dom di ma bañ Cheikh grâce à yow ya, moo tax tey nakaru àdduna bi ma am yépp yaa ma ko teg mais nañ dem yàlla ya baax na may teg lépp ci loxo yàlla ya suñu borom yàlla mii yi nga xamante dara tëw dina ma jàppale

seeni baxna na demal rek yow yaangi dem di lijjanteeti rek man baama dem nañ bi dafa tàng wóor na yàlla mënu ma taxaw. loo xam yoruñ tara lo leen laaj yoruñu yeen non man sama dundu high level la du fii. Eh, bro naan ah, la cool naa ah, si ah sinon ça va. sant kay Pape Duba deux minutes ah. maa jàmm la maa jàmm la. Ah, cool kulit, baay sant kay lépp cool sant bu baax a baax. dama la soxla benn petit bout une minute rek. maa jàmm la en fait euh, dam bi léegi yow loolu lu mu la intéressé. dafa am daam mooy su bu tudd lootu la tudd. ça. am naa maa ndaw. seen seeti nga de macha allah. comme d'habitude ndax sa jikko lu moo tax. ci loo nekk nag. maa ngi nii comme nekk liggéey bi. ça va mon cher comme toujours. maa ngi cool. maa ngi nii jëm kaw. seen ay temps moom. waaw temps yi moom genre que climat bi dafa xaw a changé. seetlu bàyyi wul quoi. gis nga ko de. am naa la. alors. te mën na spécialement waxtaan. d'accord. waxtaan nag waxtaanu àjjana la. man moom lay neex. so happy freedom dama am cofeel ci yow te cofeel lu leen lu mbëggeel kese dafa am nag jigéen am jigéen yow jigéen nga dama gëm ni yow bu doon daxante façon naa góor nga non c'est-à-dire sa jëfin daf ma doy dama la taamu seetlu la te mën naa la wax benn affaire man yaay sama xarit Matar sans ma teel a jox la. ngir dugal ko ba la bëgg man nag gëw ma jàppale xam naa gëm jàppalante ma jàpp mën a kese kese <laughs>

te gëm naa ne nag man gëmmu ndoxaan ndox man laa gëm fas yéene nag ci farataal mais loolu lu am la foofu mi ne am xam daal incha allah dinañ ci dinañ ci waxtaan daal. nag bu daal nag macha allah nag jongo <laughs> non de yàlla yàlla baal ko. xale yëpp ñoom loolu la ñu waxtaan loolu la réew mi yëpp di wax. lii de mooy.

sama nijaay moo ko yore mooy daam bi ma taxaw nii léegi léegi sama jabaru nijaay la ko am na jëkkër fa la na sérité bi ngeen sérité Europe bi yow yow dama la sérité yow xaar rek non ak ñoo gaaw amoon dama joroon ci sama xol dama joxe euro bi am da ngay jàpp ci 10 000 kan taw yi moom la laal mooy daan inshallah la ilaha illallah lii li ma ko gëj a gis sama nijaay ay 300 la may jox ay téeméer feet kër ga duñu añee duñu reer eh, ay sonn live la xam nga paa yi léegi sonn la def sama nijaay jox ko dara

ba pork nga pork sa kanam say verre. te nee daal sa reewante gi doo ko bàyyi yow saa yoo ko fi amee gànnaar nee nga toroxal ko. xale la si dëpp lay bàyyi. da yow xool boobu bul ma lu koy ñàkk silvissé nag paase ngay ñëw dugg ci salon yaa ngi dégg dugal say dàll ñu naan déet waaye nga jël dàll yi teg ci kaw moket bi. jégal naa ma xale ma macha allah. Hmm. ma lay ci xaw ma sedd ko yi. xool ko kanam gi yow moom. pour que mu ngaaw musóor di mel ni ku ñu xaañ lu tax safar bi entré ko ci sa néeg bi di mel ni munu du nee nga da ngeen di xaw ma loo di dund nii kookul fasal mbaam euh, nu mu tudd. ba ma pare. xaw ma xaw ma la xaw ma euh, laytaaya nga fa paana nga fa. maanaam jinax yi daal foofu seen néeg xam naa loolu tax dugal la fa ndeysaan moom nga koo wan moom nga koo wan sa néeg ndax mu xam ne yow seen bitig man naka jëkk ma xam ne am na ko lay mbaram mais ba ngay liggéey di joxe moom ngaa xool ko ko jar mais lii ay ndeysaan waaye nag sama yaay bi ñëwee gratuitement laa ko koy jox du ma xaar sax mu ñëw dama koy woo léegi sama pare jox ko ko mu ne daal fen moom xam nga taamu sa yaay. fekk. loolu kay mooy géej am na ndox. waaye tëggum na dëgg simil lay doon neex benn naqari benn. dëgg la. prochaine fois nag buy ñëw ne ko daal la du ñëwaat sax nii. soo ak sa kanam mu ne daal couple dëgg la. ci couple la. les amoureux waaye.

darah darah masih deh ah, eh mau Mau memang Nih, saya iya, mau ma def tempo tempo après nan dëgg inshallah rabbi nanti dama la xolal bàyyi ci xam nag inshallah thank you ma aja kontaan naa yaa fi ne <laughs> ok allez au apa? be. Hindi, ano, makikita ka na. waaye ni ngeen nuyooyee. Hmm, xam nga man ay rees nga ma def daw. lan laa defee ree lan moo xew. man dama bett. ci lan. man dama la woon kanamu ci lan. dama ñaata at maa ngi nekk sa commune loolu. waaw ma defal ko teraanga dul jeex. Mm-hmm. tey ma jógee senegal ndax moom. Mm-hmm. ma ñëw ñun ma am na jëkkër. tey kan moo ko maye. eh da laa wax. kan moo ko maye buñ koy maye man ma yëg ko. yow dafa mel ni yow la nga mbir. yow ya rere mbir ki luma duggu xam nga ko yéen ñaara yam ay baadu la ngeen yéen ñaar amul lu ma deful si yéen tey ngeen may fayé li yow lan lañ la def lan lañ la def ak lan mo fi jar wax ju reey ji nga taxaw di wax xamoo li ngeen ma def lan lañ la def xamoo li ngeen ma def nako ko ni li du ci génnee non lan lay loti du dugg ak génn waaw sama jigéen waaw ci loolu salaamaaleykum ah dara kontaan naa ah yow chaque jour moom aller retour li ma romb. waaw la yor. maa la xam maa la xam doom la business sax nag ni quelque bien sûr. Euh, may neex dafa yor benn sec. sec. Mhm. Ah, léegi seeg bi nag xam nga yow moom yeneen ñi te yaay kàppoo ko moom. alhamdulilah macha mi nga garal rek moo tax ma ñëw ci yow sama xel dëpp ci ci yow ma la wax sax prix bi xoolal ko sa bopp. ah sëñ moom macha allah. loolu la ci xam moo tax ma ñëw woon kenn doy ma ci yaa ma ci doy. seeg bii. Moussa Moussa. Ndeye. ma vie su teree tamit nga bëggee xaalis. waaw gis nga gis nga waaw nga yow. ba léegi nii mu def lan nga koy jàpp. ça va ñu ngi xool seen bi kii est-ce que naa leen bagage. maa ngi lay. waaw déedéet. ndax moom. yow xool. waaye gis nga sama bopp bi moo bëri ay problème bi laa. kii nee na sec bi muy def. waaw waaw sec bi yow tamit xam nga rek 3 millions la léegi da ngay def 2 millions ñu jaay ko. keroog dama romb benn boy boy bi kañ la ñu lootul rek mun ma benn nijaay moo ko takk. te deug la gis na wo oh, yow buma waxati seeni momu xamante fen rek rek rek moy métier ci dekk bi seeni dox na doxo doxa dox keur gu mu rombu duggu fa calson bu benn bo xamni netali rek rek rek moy metti nga waxe seni eh, dama xam keneen nga may wax. Eh, yow mi yaddu wax ko tu dëgg gi nga ko dam ko gem gem dama ko top ba sen keur xana dang ko jox bi lolou sayu yoon si. gis nga nak bo bo demé nee ko. te mënul def lu ma

ah te ku tukki ñu rees sa ginnaaw. am na un million. bi ah waaw. waaw un million de xaw a gàtt tamit. non sincèrement

24 heures laa. lu sonné lu sonné man. lu sonné rek xamal ni man. waaw bal ba tànk na waaw mais ñoo far amul benn problème waaw après nga déggante moom rek ah, mais yoo ko sa loxo la. jaay ma jaay ah, ma. <laughs> nekk yaa si jàmm ah yow de yaatal toog waaye man taluma toog El Hadj léegi la fi jóge El mel na xoolal moom la léegi la fi ñëw lu ne wax na xoolal lii xaju si téléphone lii lii li xaju bàyyi li ngay def nga daw si ñëw tegal sa cin li nga daw si ñëw bàyyi li ngay def yëpp nga ñëw ñëwal taw si nga ñëw dee dem na ñëwal ñëwal ñëwal lu ci ñëwal yow yaa tal toog mais talu ma ko ñëwal. moo tax ko léegi léegi léegi teew ko dégg bi fa ma jël ko lii occasion la. yaa ilaha illallah takk naa la woon léegi. muda nam naalde waaye maa ngi fi maa ngi fi yow ma soxla naa la de waaw soxla naa trop trop sama gars bone temps quoi waaw ok nga gi nga bi ni xar bu day sal rek Rồi. Rất gấp. Là. lan la ku jëm kii moom moo léegi daba ci moom laa bëgg dem yegg ni ñëwaat léegi maa dem waaw yow eh ta eh eh, eh taxawal eh, eh, yow ya, daba bu la woowee nii ngay solo di génn yaa lan nga bëgg ma solo yow ya, tamit yow ya, xaal da ngaa fàttali yow femme mariée nga wala ma ci femme mariée ba ci lan daba sama xarit la di moo ma di pour ma yow seeti ko léegi nag dara di daba bu nekkee sa xarit nag jëkkëri paa nga yor jëkkëri mag nga yor. waaw moo tax ma bëgg laa toppatoo nag loolu du dara yow tamit. déedéet lii boo ko defee nii gone di football fii nga yàq seen football ñay jaay café fële ca wàll boo leen rombee aller retour ñu yàq seen tubay. man damaa foog ne su ma defee nii sax di nga ma ne sañ-sañ nga ya rafet na waaw demal yeggal te ñëw. leneen fi naa ma ay xale yu jikko xol yii ñu xam sama moroomu doom lañ yow tamit man yow rek yaa ya, may xool yow tamit ba ma yegg ya te ñëw. ah eh eh ay ndax ndax fi dama def la wo téléphone wala def la envoyer fa maa wu léegi appel normal léegi la couper ak man. appel normal bo beugé mo la appel bi. léegi to appel normal nga ne ko sama nijaay nee munu ma ñew dafa guddii waxal ko nijaay baax na yow toppatool ma xari ak goñi ma ngi ñew léegi. ba la ngay dem ni yow tam déedéet yow lo di dara ma ngi yex ci léegi yow tamit. xolé li xolé li nga sol nii. xoolal gën gën tëjuma ko xoolal li nga sol ni ni mu ne ñap sa yaram mi nii yaa ri ah tëdd yaa ngi ri organiser ni ngay riigee organiser ni ngay riigee laa wax organiser yaa ngi gën a yokku di demal baax la boo ñëwaatee fii di fekk lu gën a pire daan naa sax ci loxo kii dal la ko sama àq dal rek boo de boo ñëwaatee nga fanaani fële